salaamaaleykum mbokk internet dakar net point com tey dañ leen a ñëwal fii tey ji ah, di Petit Mbao kër Eumeu seen yaakaar naa ne bi fi ñëwee am nañ ku ñu fi dalal koo xam ne mun naa ne kenn door ko présenté fii nii ah, ci Sénégal mi Pape Sarr Pape Sarr ko xam xamee ko Pikine xamee ko bëgg Pikine ah, ñu gisoon ko ci combat bi mu jàppoon ci loolu ñu gis démb combat bi am nu mu demee ba ba ba mu mujjee jeexee avertissement ñu jox ko ama kii Lac de Guiers victoire bi léegi ñu def lu rek dugg ci moom waxtaan ak moom laaj ko démb nan la dundee combat bi ak ñoom ak bi lan la leen jaraloon démb ba démb loolu am ci Pape Sarr ñu leen nuyu di la ziar. maa ngi lay fay di nuyu waa Dakar Net di nuyu population mbaaw bi ma nekk képp ku fi yeewoo muy mag muy ndaw di nuyu ñi ñi ma fekk fii tey muy waa Gambie yi ñoom dinañ si sànni seeni kàddu euh, jël nuyoo bi yëpp di ko teg ci président fans club bi. Tay Singa family waa Gambi muy Dembo Dieng maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax ñoom bi ñu jàppee ba tey bàyyiwuñu di nuyu tamit waa Pikine di nuyu waa Touba su ma waxee waa Touba damay jël ci nuyoo bi teg ko ci loxo Serigne Mountakha bu ndaw muy doomu Serigne Modou Habib maa ngi koy nuyu bu baax ak sëñ Xaadim xam nga ak waa Gede yëpp maa ngi nuyu waa Kaolack gis dem naa fa waa Kaolack muy jullikaay ba Sàmm maa ngi nuyu képp kuy yeewoo Kaolack taalibe bàyyi yëpp maa ngi leen di nuyu. Mhm. ñaani yi egsi na liñ ma waxoon yëpp teg naa ci sama bët. di nuyu waa Tiwaawoon di nuyu suma yaay bu baax a baax a baax a baax. di nuyu waa Kër Lobaat Fall yëpp ci kaw ba ci suuf di nuyu waa Cité Lobaat waa Pikine waa Xurunaar maa ngi nuyu ñëpp. diaspora bi nag daa am benn doomu Père Balla Gaye bu ñuy wax monsieur Ndour. monsieur mu ngi Espagne ku bëgg a seen la maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax monsieur Ndour doomu Père Balla gay gërëm naa la sant naa la sama sorti yëpp dama doon fottu gërëm naa la bu baax gis naa jàppale yi nga ma jàppale yaa xaadim toldo laay gay VIP képp ku nekk Espagne France itali ñoom mbay tos gërëm naa ñëpp di gërëm bu baax Ahmed Lam Tooro moom mu ngi Kaolack di nuyu tey waa Gambie yi ñii laay tëjee ci nuyoo bi maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax a baax parce que ay jàmbaar lañu Gambie ak fii dafa sori di nuyu bépp doomu Gambie bu nekk si diaspora bi Suède fépp foo leen nekk yàlla na leen yàlla defal jàmm. waaw mu ngi noonu kooku may Pape Sarr xam naa lu ñu def lu dul dugg ci waxtaan bi. Mhm. Ah, Pape Sarr démb combat bi ni ngeen ko waajee. Mhm. Ah, na ngeen ko waajaloon démb ak ak ak démb li leen ci dal li na ngeen ko dundee en tant que Pape Sarr yow nga bokk ci staff Eumeu Sène. xam nga man du may wax wax bu dañ avant combat bi di ñëw di jot laa la de guerre Eumeu benn tànk bi du fekk si beneen bi benn. ñaar ma ne ko wanal Sénégal lii laa mën kon la euh, la dëgër xam na ni Eumeu seen lii lay bëree avant combat bi di commencé laa ne la dëgër wanal Sénégal mën naa dara deuxième bi ma ne supporters yi képp ku ci am hémorroïde bul teg sa tànk ci làmb parce que day yëngal hémorroïde léegi nag li ma koy wax mercredi lay jot xaalisam. kan la dëgër waaw lay jot reliquat am jeudi. Mm-hmm. jeudi 13h. Mm. supporteru la dëgër yëpp laay wax deplen leen rang ni ngeen demee woon stade. mu su jotee xaalisam mu jox ku nekk trois am. mu jox ku nekk 3000 mu delloo ku nekk sa paas balaa muy lekk ak lii ak la de parce que xas na man dama bàyyi damaa bàyyi topp mbër licence bi Gaston nga am. Hmm. ak Luc Nicolaï moom laa am. ma tënk nga daal. mais maa tëgg ne ko rel marle Bour Sine mobile ay événement yu mag dix combats laa jël yëpp ay grand combat ma waat ni dootuma topp mbër mais xas bi mu xas ëmma seen. ne ko sa rakk yi bëgg mais bëggoo sa rakk wala dafa fàtt ni combat Ama Baldé fëgg la ñu ajee Eumeu Sène wala dafa fàtt komba booy Boy Niang lañu la ñu ajee Eumeu Sène wala dafa fàtt ni barki démb bi Eumeu Sène war a bëreeg Modou Lo une semaine de combat Eumeu Sène jóge fii dem taxawi ji rakam wala dafa fàtt ni Eumeu Sène di bëreeg Bombardier Ama Baldé def open press sama koñ Eumeu Sène bàyyee ko fee dem Eumeu amul ku ay rakam mais maa ngi wax Pikine waay de ku ma ku ma lebal rek ma fay la loo ma lebal dinaa la ko fay. Hmm. mais est ce que mën nañoo xam Eumeu Sène pourquoi la dëggee njëkk ko ci euh, arène bi. ñun quatre heures trois heures di matin ñun ñëpp ñu ngi ci stade bi xam nañ ni Eumeu Sène fii lay teg cumukaay xam nañ ni. parce que coow loolu tamit ñu ngi la quatre heures di matin. waaw déggoom ñun ñu ngi dëkk xurunaar xurunaar ñetti tëli la ak arène nationale. Hmm. déggoom man maa dugg ci biir stade bi man ak ñoom bay la ak samay rakk yëpp ak waa Pikine ñu dugg ci stade bi. ñun foofu lañ dëkk loolu du dara xas bi mu xas Eumeu Sène la pour man tey la Eumeu Sène di dee la de gàddul nga sey supporter ak may wax peppu population Géejawaay dem leen ci Balla Gaye dafay teel a libéré ay supporter am xamul lu koy gaañ bu arbitre bi soplee dina def lii la man fekk na nag si digg géew bi fekk na ma si digg géew bi mu ne dina ma massacrer kan ci Lac de Guiers moom waaw. Hmm. moom Lac de Guiers nee na ma man dina ma massacré. Hmm. Alioune Seye 2 moo la may chance. man kay. Hmm. man la war a wax ma jéggal ko moom mii nga xamante ne almeer yooyu dañ fa denc sama waajur bu góor denc fa ay shérif ñu jàpp ko fa ak jigéen nga bàyyi auberge yi bàyyi ravin bàyyi fépp am na géejawaay. dégg nga. man la de amul dara lu ma war a wax. man sama waajur la ñu denc ci almeer yi mais moom rek mooy VIP bu ñu jël dugal ko ci auto police. xasit waaw. xasit du xasaate xasit du warul xasaate waroo ma fekk ci diggu géew bi man sama mbër moo ma te maa ngi doog a def li ma def démb ci làmb parce que sorti bu bon bi mu def ku mu bëral lii la lay def daa dem gëree sa ay médecin ñu tabax loxo bi moom démb génn nañ ko ah mu ne loxo bi dama ne la dara dalu ko bëri naa ak Modou Lo mu ne faar bee damm fii la bëri ak Modou Lo premier mu ne sama faar daa damm lu ma la xamal lu ma la nii maa ngi wax promoteur yi képp ku ci bañ dem kaso moytul tëggal la de guerre da ngeen di dem kaso de barki Seydina Mohamed da leen di yóbbu kaso de lu leer laa lay wax. mais démb tamit gis nañu ah, am na sax ñu ne ne est-ce que euh, xaw ñu ko jàpp ci gàllaaj. Eumeu Sène bi mu Eumeu Sène bi ñu defee bu mu desee trois minutes. Mhm. maa ko sànni almet woo Abim Ndiaye na ko taalal sa karaw pour la degeer jàpp ni dañ laa jàpp pour mu song sa tànk yi boobu sonn nañu ñi amee feebaru hémorroïde ñu ngi daw Mmh. la de Guiers rek moo bëre démb ay supporters am ñibbi te bi jeexul. démb waaw. man dégg nga mais amul tax mu ñëw téye boppam. bi ma dalee xam am ma seen ba tey demb lay doog a ngemb. démb lay doog a ngemb man combat mag combat mag ma faal sëy. Mmh. dégg nga mmh. combat mag Boy Kayre. combat ñaari combat mag Mbaye Diouf. combat mag Zallo. am seen du ma ci moom silib man caaya laa ci. dégg dégg nga dama ko topp mbapat ba arène quarante mille laa ko topp ba nii dégg nga. daanu daanu waatul daan rek ma bàyyi ko man du ma doxee noonu. mais dama ne ko dem mu ñëw taxaw. yow yow la de guerre moo nekk màgg na. waaw xale laa. Mhm. nga may jëli sama sama dañuy jëlee indépendance. Mhm. man de dëkk ma ne la adduna bi yëpp ku ma gis muy jëlee nii indépendance dëkk boobu du jog ci guerre. indépendance bi de yàlla nañu si yàlla musal nii la ñu jëlee indépendance. ah kii waa waalo mere nañ ko nee na waalo bañ naag waalo li waalo kii la de guerre bii sonn na ay supporter am de barki Seydina Mohamed moom mooy seul VIP bu masinil quatre fois mais aussi dañoo gisoon keroog ah, defoon nañ benn émission nga ne ma woon ah, combat ah, Lac de Guiers ak ba Boy Niang bu ñu gisee xam mi ngi jeex Lac de Guiers dafa accéléré Boy Niang pour mu am avertissement mhm. mais loolu noonu xanaa ama sóoraale ko parce que gis nañ ama seen ama seen am daa verbal am sortie de libéré. ban la ci Eumeu seen def ban kii arbitre boobu ñu indiwaat démb te leen ajoon. Euh, kii Ngom maali Ngom moo ne arbitre bi ñun ñu ngi tiim mu ne nii arbitre bi jeex na. bi am seen di faju ji. combat bi deux moo ci des. bi ñu bëree waatee lat dégg nga. bi ñu bëree waatee arbitre bi moo ne ko jeex na mais dafa am autorité yu jóge ci kaw. Mhm. ñun ci làmb lañ bokk dañoo xam mafia yi ci rek bi autorité wàccee. Mhm. entraîneur Boy Niang muy Père Bourkhane ma koy nuyu bu baax moo nañu Eumeu Sène nañ koy avertir moom kese lañuy ñuy avertir. moom Père Bourkhane waaw entraîneur Boy Niang ménageur Boy Niang xam nañ ne Eumeu seen nañ ko avertir duñu avertir Lac de Guiers ñun xam nañ loolu. na leen koo wax daal waaw mais damay wax ni. Hmm. yooyu noonu. Hmm. bu mu leen dalate arbitre yi bu ñu soxlaa xaalis nañu ñëw ci man am naa porte yu baax. yow mi waaw man li jëntil leen ko. dañoo am problème xaalis. waa dañoo lii mu def nii non mais yow ñun duñu ay dof. ñu dañoo bokk ci làmb xam mafia yi nekk ci làmb ama seen combat ma ah, signature bu 2S damaa bàyyi ba timis jot ma dugg si biir signature bi fay làmp 2S boobu sama 2S la ma fay lamp duusi di leen seen dégg nga ñu jiital la dëgër yëgal ko ci kaw Alioune Seye 2 Alioune Seye 2 ñëw di wis ñii di sotti ay sunguf ñu tege ne ama seen foofu lay jaar ma jël soo xoolee vidéo yi ama seen mu ngi wax téléphone ma fekk ci oto bi hmm. ma dem mooy mooy mooy kii yooyu. tapp yooyu di nekk ci aéroport yi yu xonk yi. yooyu laalal am na seen taxaw léegi ñoom ñi tëgg làmb. ñu ne am na seen fii la war a jaar ma ne ko am na seen jaar fii dellu Petit Mbaaw la gën a yomb. ma ne ko bi. Mhm. du kii lañuy ñuy saraxee dañ ko doon saraxe. fii dañ ko doon saraxe làmb bi du ay affaire u géejawaay. Mhm. du ay affaire kumba am ndey kumba amul ndey. Mhm. laal mbaru Pape Sarr mooy laal nga sa musiba parce que Pape Sarr dafa xam mafia bi ci nekk démb barki démb mafia bi mooy ñi jóge ci tribune bi. Hmm. ñëw ci foofu. ñoo tegal di ak arbitre bi. kon da nga yaakaar dañoo complot ak arbitre bi dañoo complot ak bi waaw. mais ci kaw yéen xanaa nekkoo leen fa bay gaay no non ñun. am Eumeu Sène gunge nañ ko ba ci digg géew bi. keneen ñëwul ku dul ah ki ki toog ki toog moom 16. Hmm. ñun amuñu woon accès pour accès foofu mais ñun xam nañu xam nañ ni. Hmm. xam nañu nu mu demee mais yow wax ma yow sooy sooy sooy jox mbër avertissement. day fekk. nga génn saaku yi walla nga def sortie de libéré ñu jox la avertissement mais avertissement bu mu def ni fan la ko teg fan. yéen yaakaar naa dafa jékki-jékki rek. arbitre bi dañ koo corrompu corrompu la. arbitre bi waaw. lii nii ma gis. Hmm. corrompu la. mais maa ngi wax Bira Sène ñu ngi lay doog a teg CNG. Hmm. ngay nit ku baax. Hmm. Bira Sène jugal ci lii nga kase verdict bii. parce que lii du victoire. président CNG laay wax. Hmm. ñun ñëpp ñun ñëpp yemale leen ñëpp. Hmm. ngeen xam ne lii nii. Hmm. lii lii du victoire man déggante naag président CNG. baabu moo ma ko jox téléphone man sa doom laa. ñu sonn trop suñu combat bi Lac de Guiers ngir yàlla war a suuri demal nga immigré ji. nga bàyyi Balla Gaye géej Géejawaay dégg nga man tous lañ ma mënalul. démb gis na la sax Pape Sarr lu la mosoo gisee xam nga ba nga doon coow ci stade bi gars yi di la gis. est ce que mm. ñoo xam lan moo ànd loon coow looloon parce gis na la nga xaw a dëkkante gars ba euh, ba amee lu ci xew ñoo doon laaj tey. li may wax mooy damay satal deru Alioune Seye 2 ki may waxal. Mm. génne naa ci Alioune Seye 2. Alioune Seye 2 génne naa si Caatu Waalo. Mm. génne naa si Madji Madji. génne naa si Alioune say Junior. Mm-hmm. mais dafa amaat yeneen huit yu fa des. kooku moo ma woo ci benn inconnu mu ne ma. Mm-hmm. pour Eumeu Sène bañ a daanu. ut leen ndoxu indisposé ma ah. ut ko. ci kii ma ko jottali ci stade waaw. Eh, ci stade la la dajeer. est ce que mën nañoo xam kooku la. kooku mooy ki ma doon joxoñ waruma woon joxoñ parce que suuxlu na mbërëm ba kook mbërëm boobu. Hmm. munul daan ëmb seen. lu garaaw laa lay wax. Hmm. benn doom laa am bu nekkee li may wax amul yàlla nañ ma tàgge balaa timis. moom moo la wax waaw. waaw moo ne ma. Lac de Guiers gàllaajam yi lii moo ko yàq boo leen indee lii Lac de Guiers du daan Eumeu Sène mais dafa waruma woon joxoñ di woon ni Pape Sarr nii ak nii man ku ma si joxoñ sama koñ fi ma dëkk ndaayaan munoo dem fenn te romboo fa fu ma neex laay dugg bi may topp làmb juddu wuñu te man ragaluma ku def see séerans ñaar fukki at musuma mandat d'arrêt musuma mandat dépôt demal tribunal bu la neex wala police xaw ma lu dul samay mbër yi man Eumeu Sène ku ko bëgg ma bëgg la ku ko bëggul demal na le. waaw waaw demal na le. Lac de Guiers man daf maa rusloo man dafa waroon nopp tëjloo sama gémmiñ. Hmm. Lac de Guiers bu toogoon ci kaw Eumeu Sène damay tëj sama gémmiñ. Hmm. ñem du ma ñem damay voyager dem. Hmm. la de Guiers ma suba dem. dem day tëj sama gémmiñ. loolu la wax dina tëj sama gémmiñ wala tëjee sama gémmiñ. mu ne de guerre ni ma ko xamee dafa def benn sortie mu ne daal na Paate Balde mbapat magu Ama Balde tey laa koy confirmer Sénégal dëgg la mais bi ngay daan Paate Balde nga paru jour boobu la Jules Balde daan bombardier te bombardier amagul licence kon la de guerre ñaata at nga am <laughs> munoo wax à l'âge de six ans nga bëree Paate Balde maa yóbbu Paate Balde nga paru nga daan ko mais jour boobu Jules Balde moo fa daan bombardier te yow la de guerre amagoo licence la ah, amagul licence à l'âge de 23 ans mu ngi nekk frigoris tribunalu Géejawaay Lac de Guiers bàyyil Balla bàyyil Eumeu Sène mi ngay wax mag bi ngay daan Paate Balde Paate Balde 1979 la judd. mais Eumeu Sène moom moo wax mag. Lac de Guiers mun waxuma yow Eumeu Sène nga. Lac de Guiers mun na jul Balla Gaye. Lac de Guiers waaw. combat ba combat Mbapat Bombardier Gilles Balde. Lac de ñaata at la am. dama koo xam mu nekk ndaw nekk centre sauvegarde mook Aliou Serra sama muy muy jàng mécanicien Aliou di jàng soudeur xam naa ay aasam xam naa aasam dama ne la bala gay day teel a libéré waa Géejawaay mais dama ne la supporteru Géejawaay yëpp. mercredi nag dem leen ci buntu arène nationale bi. Lac de Guiers day jël desitu xaalisam na leen delloo yéen ñëpp seen 3000 maa ko ok d' accord yaa ko wax démb tamit Pape Sarr dañu euh, mhm. yooyu noonu. Mhm. loolu da nga daan gis ci Balla Gaye ak ci Lac de Guiers. Mhm. yooyu laa lan moo waral loolu Pape dama ne Eumeu Sène ak Lac bi la nee hmm. lu tax su ma ñëwee mu daw. dama bëgg wax yaa gën nekk jinne. maa gën a nekk dama bëggoon mu dugg si géew bi barki yàlla dama bëggoon mu dugg si géew bi. ñooñu du ñu yàlla la de guerre ñooñu ngay tudd borom xaalis yooyu du ñu yàlla man Lobatt Fall mooy sama maam te milliardaire na sitee la tabax cité Lobatt Ndiouga Kébé mu ngi fii anamu génnul àdduna bàyyi fa ay milliards am ana Ndiouga Kébé ana Lobatt Fall man Lobatt Fall mooy sama maam man waruma topp si ginnaaw kenn dañoo judd fekk mu tabaxal ñu cité du dëgg moo tax ma ne képp kuy jege mbër hmm. na nga yemale dërëm ak million boo buggee mbër bi wóolu la yemaleel dërëm ak million ah, man moom laa yemale du dëgg mhm. moo tax dama gëm Balla Gaye bàyyi la dëgër bay ñi ngay tudd nga gëm sa bopp ñooñu du ñu borom mbaar bi borom kegul boobu mhm. du yàlla du yonent bi benn nit la bu ñu jëlee misère féticheur la waaye bu ma fekkoon ci géew bi mhm. dina xam ne du féticheur dem ma ne la lépp lu la dëgër sangoo abiyaas la abiyaas la waaw loolu leer na ma nañ dañoo bëggoon def néew Eumeu Sène ci géew bi xam naa ci dara parce que man quatre heures ma matin maa ngi ci stade bi am na ñu jot ñam nag ci buntu stade bi. waaw ba ñu nangu seen scooter am na ñu jot a ñam ah kooku may ki may wax xam na boppam ñëwal nga jël ci sa scooter. anam arrêté bu fa la nekk waaye dootoo damate arène nationale guddi de waaw. mais mënoo moom xam na moom mooy seetaan dina ma seetaan ñam na lu ko lu des ci lu des ci dundam mbëru pikin du bëri arène national nga ne da ngay ñëw miine si. dafa ñëwoon pour miine si dootu ko defati. barki yàlla déggoo man quatre heures du matin maa ngi ci biir stade bi ak suma scooter mais moom xam naa ne tey booy dañ nee nañ dañ koy delloo ji scooter am waaye dootu ko defati ba ba muy dee. mais dem ni ngeen demee ak ñi làmb taaroo Pape Sarr est euh, nañ ci comme euh, Eumeu Sène ak la de Guiers ñu doon xool combat boo xam ne tey ku daan rek lañ koy amateur yëpp découragé démb. yow amateur yi. waaw dugal si dugal ci ST yi. dugal Facebook dugal fu ne TikTok fu ne Lac de Guiers Adamo sax mu ngi wax Lac de Guiers Adamo ma koy nuyu bu baax a baax loo wax dëgg la. Adamo Adamo boos day ner gi xaw ma. Mm. ndaanaa la ngi noonu barke Seydina Mohamed théâtre kat yi comédien yi ku dugal Lac de ngay dugal. billaay man da bu ma doon maay moom. Mm. damay ut sama xaalis sama reliquat dam dagg billet Chine dem mm. tëdd foofu ci chinois yi. bàyyi laam abal ñu suñu Sénégal dafa rusloo ñëpp. mais moom nee dafa nekk ci yoon de roi des arènes man xamal boobu muy wax noonu. Hmm. yàlla bu ko jël xam nga lan moo tax bu ko jëlee kenn dootu ko nangu ci moom parce que roi des arènes bu am 19 niil ngay gis doo am victoire waaye doo ko daan de yow ponkal bu toll ni immeuble bi taxaw hmm. nga ne dooma daan du ma la daan dooma daan nan la lay daanee mais lan la lan la maa ngi lay ñaan nag. boo toogee ci plateau bi bul naan ay làmb ñaari nit la yaa waxoon màgg nga yaa waxoon naa la duma defoo ci tus ba ba loolu mooy layam làmb du benn nit kese ñaari nit la. mais da ngay bëggoon Lac de Guiers jël initiative bu rek. dama avant combat bi dama ne Lac de Guiers jox nañ la lépp wala senegal mën naa lii moom moo waroon wane lii yow yaa gën a xam ni doo tëj sama gémmiñ ma dama xam ki ma am de kii. Mhm. tàkkusaan bu nekk indil na ma ko. kii mbër bi mhm. takkusaan bu nekk indil dama ko sa entraîneur boobu demal nga laaj ko lan la ko ëmma seen def sama koñ moo la toogal ban entraîneur la dëgër ah ron ron am mhm. mbotu deuxième pied la ko dóor billaay wallaay tallaay principal la fanaan tuuti loos bi damm billaay mbotu deuxième pied wax ma ban mbëru géejawaay moomu sa toog ci kaw ëmma seen mbapat wax ma ban mbër la benn mbër la. Mhm. géejawaay yàlla na ko yàlla yërëm. am na fa benn mbër bu ko fa daan. arène. arène Mafal Sey la premier combat Eumeu Sène Eumeu Sène da koo daan suñu buntu kër ñu boole leen mu daan ko Mafal Sey. te kooku mun na daan ku ne. Mhm. yàlla yóbbu na ko yàlla na ko yàlla yërëm. mais Lac de ko gis Pikine muy bëre mbapat du dëgg saa Thiès laa gis Pikine géejawaay ak les deux mhm. ak euh, saa Kajoor. ak euh, Ousa Sow ci mbër yi nga xam ne dañoo ñeme woon dugg si Pikine waaye Pikine nga dugg fa timis mbapat nga génnee noonu musul am loolu la ñu ragaloon léegi nag Pikine dafa bëri dëkkaan dëkkaan bi mooy da ngay jékki-jékki gis kenn ku la romb ak ki surtout Modou Lo mais ñun buñu fa daan nekk rek suñu mbër bu duggee sax doo ñeme yuuxu dégg nga mais mais kooku noonu ngeen doon ah, ak extérieur kooku mbër la wala wala nekk non kooku kooku supporter la mais nekkul mbër du mbër supporter am la dafa ñëw sama booy song ko mu daw bàyyi fa scooter bi tuuti ñu rey ko billaahi ñooñu soo paasee soo paasee arène national bi am na ay camions yu fa yu ñu fay jaay ñoo ñoo ko rawale duggal ko ci école neuf bi noonu foofu dégg nga damay comme ni ma jàkkaarloog cantine bi laay jàkkaarloog stade bi man damay dugg rek dugg ci stade bi li ñu xam ci stade bi xamuñu ko la dageer doo daan mbëru Pikine ci biir arène nationale. arène nationale du daan mbaru pikin mais kon victoire bu ma sama doom sax la dëgër du ko daal. sama doom Cheikh Fall bu ndaw bi. 12 hmm. ans la am la ko daal. lu leer laa lay wax la dëgër yàlla tey laay wax ba tey laay wax ba kuraay fay la dëgër yaa may noppiloo tey. d'accord. waaw waxal kagul bi. waaw mais comme nee nga a ah, nii Lac de Guiers mu mënul am victoire yéen foofu noonu. Mhm. mais gis nañ fa Lac de Guiers dafa ñëw foofu noonu ñu yëkkati loxoom ñaari yoon. yëkkati xam ñaari yoon victoire. non yow lii moog booy ñaa ngay wax. waaw mais yow Lac de Guiers est-ce que jibile na moog booy ñaa. Hmm. li ñu bëreloo booy li ñu bëreloo ëmb seen démb. Hmm. loolu la booy kon combat ak booy ñaa booy ñaa moo mu dem na ba booy ñaa Lac de am ñetti avertissement Boy Niang am ñaari avertissement combat bi def cinq minutes Boy Niang li Eumeu Sène def la waroon def téye boppam parce que xam na ni kii la Lac de Guiers xam nga lan la mun ni boobaa day am niil kon déglu ma Lac de Guiers xam nga lan la mun waaw nga sànni laaw mu paqueté la wala mu kal la munul leneen Lac de Guiers munul leneen mag nag doo dem ba nekk paa nga damay jéem lu ma munul loolu moo ko dal démb daa bëggoon jéem lu mu munul la de Guiers yaa may noppiloo xaaral ma gémmi gémmiñu Pape Sarr. loolu la wax de. dugal ci TikTok yi yëpp Pape Sarr la ñu dem li ma mel yàlla moo ma ko teg li ma sonn ci mbëru Pikine doo gis mbëru waay bu ko am doo gis ku taxaw kuy bëgg làmb di ko def. kon démb dañoo jaaxaan ne kon émeri yi jóg na démb dama la mais yow la de guerre xoolal bi arbitre bi sax ñi am émeri yëpp ñibbi ñëpp a ñibbi nee nga ma di nga ma la de dinaa la génneel quatre cent quatre-vingt-dix-neuf man maay sël mu teg ci deru Eumeu Sène ma génn ponkalu géejawaay yëpp génn di jégalu mais lu lu wax ju ñaaw rek la man mais mais loolu est pare parce que comme moo la ko wax noonu maa ngi lay xaar ci lépp maa ngi lay xaar ci sa wàllu sër yi nga yaakaar sa galaaj ak sa wax ak tontu soo ma waxee rek man la dëggeer waruma sori soo ma waxee rek ma wax barki démb li nga def ci technopole bi ci almeri man daal xam naa ne loolu moo ma met parce que sama papa foofu lañ ko denc. loolu daal ba moo la daal du ma ko wax parce que bu ma waxee ma wax la fu mu nekk lu mu def gel bi fu muy liggéeyee fu gel nu gel bi dëkk fu mu dëkk ak lépp ma leeral ko moom daf ma waroon bàyyi rek ma topp ma seen ci digg géew bi mu dox li muy dox mu bàyyi ma waruma woon naan kii moo la may chance. la dëgër yow da maa mën a tukk man 490 vidéo laa génneel Balla Gaye. 490 vidéo 400 te léegi jeexul. Mm. maag Balla Gaye jàmm am na si mm. dégg nga mm. Modou Lo noonu képp kuy bëre Pikine soo tëddee doo nelaw parce que du ma may jàmm yow la dëgër nga ne yow da may tontu yow li ma lay wax leeral feeñal naa sa secret maa ko feeñal man Pape Sarr waaw du ay gàllaaj mooy daan Eumeu Sène Eumeu Sène démb du daanu du daanu kii mënu ko daan déggoo sama doom mu ma ko ngéem la dëgër du ko teg ci soon na nga jàpp ne démb ah na ci lépp gàllaaj ak. mystique dama bi ma dalee topp ama ama déggoo ma. man dama ne xam nga wax wax wax day sol tubéy. Hmm. man Eumeu Sène combat ak ma faal sëy laa ko topp. Hmm. dégg nga. Hmm. moo kii kii ak Eumeu Sène ñoo fekk ci kilibu booy moroon bi Saalum Falaay. mu ngi nii Pape Dëj kii boobu nii la ñu toll comme booy bii. mais Pape Sarr mais adduna yëpp dañoo jàpp ne koo laaj danaan la Eumeu Sène dem dañ ko yekk ci gàllaaj Eumeu Sène képp moo tax mu téye boppam képp ku ne képp ku ne danga dañoo jàpp Eumeu Sène xamoo lamb hmm. ñun moo kii ñoo ko sànnee almet bi pour la de ñëw dañ ko doon piéger di taal karaw bi pour pour mu ñëw ci tànk yi barki Seydina Mohamed mais Eumeu lu tax demul dama ne bëri na mbër yi nga xamante ne sax bu ñu nekkee seen jabar dañuy rasu balaa seen jabar di leen laal bëri nañ ci ay bër mbër mooy loolu moom yàlla moo leen bindee noonu du ma tudd turam si yooyu de. Eh. mais dootul waxateeg man waa waay laay nuyu. Hmm. ñoom laay nuyu ngeen dem ci Balla maa ngi gërëm ñëpp nag waa Géejawaay hmm. maa ngi leen di gërëm ngeen dem jeudi lay jot xaalisam desitu xaalisam. jeudi. mercredi wala jeudi. jeudi jeudi la la. Hmm. tey su tey tey xam nga CNG liggéeyul. waaw jeudi laa jàpp ne bu taxawee 17 heures taxaw leen yéen ñëpp ni ngeen ràññee woon di dugg ci stade bi mu delloo xale yi ay xale yu ndaw xam nga fu ñu jëlee 3000 nga teg leen gàcce bi na leen delloo seen xaalis mais la de Guiers moo ñàkk jom barki yàlla mbër bu ñàkk jom mooy la de Guiers tey ngay doyal sëkk hmm. dootoo ma fekkati ci géew di wax ak man man du ma ragal man ñaar fukki at laa def séeraas. musoo dégg la dëgër Pape Sarr mooy bëreeg mbër bi Pape Sarr la ñu duma dégg nga te ma wax leen ko ñoom waa jooju am na keneen ko ma doon joxoñ li des ci dundam moom li des ci dundam Pikine dootu fa teg tànkam li des ci dundam moom muy tabaski dootu fa jënd xar dootul jaar buntu Pikine trottoir bi buntu Pikine du ko dóor nag ko def dala mais dinaa ko jàpp ak samay rak loolu mu ma wax dina ko delloo waajuram. kookal la waajooju dégg naa saaga bi ma saaga. daf la saaga waaw mun naa ko jàpp ndànk ak samay rak du ma ko dóor de mais leer na ma dinaa ko filmer ne ko li ma wax delloo waat ko sa waajur dina ko delloo force dam ko dam leen ko def ba tàyyi. waa Guédiawaye. déggoo la dama ne la képp ku ma fekk estaat nga wax ma loo ma warul wax. dama lay bàyyi rek naa la xàmmee rek. Hmm. man naa la xàmmee rek ba ñu jàkkaarloo ma ak yow. Hmm. bu ñu jàkkaarloowee di xam ne ki ngay waxal nii ki ngay waxal nii du bouger fii ak fii man pikin laa dëkk ma bari ay soppe géejawaay soo leen duggee ci YouTube bi di ngeen gis buntu Balla Gaye buntu kër Lac de Guiers supporter am nañ ñu delloo sama suñu xaalis man waxuma ko de ay supporter am. ay supporter am Lac de Guiers. Hmm. billaahi ñu ngi si YouTube bi ñun ba tey ñu ngi nii di féete. dem ba léegi billaahi wallaahi talaay. billaay. mais SM xoolal hmm. déggoo ma sama xol moo sedd la ama seen seddal xam nga lan hmm. déglu conseil. waaw hmm, dañoo kontaan. ama seen dafa seddal man ama seen wàccoo man. ku indi roi des arènes. lu mu mais est-ce que mën nañoo xam tey jii nii taxawaay Eumeu Sène ñu bàyyi ñu naan Eumeu dafa war a bàyyi ba xam pare na waat pour ñëwaat wala wala day bàyyi quoi ñu ne laaj la ko. loolu loolu du man maa koy décider Eumeu Sène day bàyyi Eumeu Sène day continuer Eumeu Sène dafa am staff am encadrement loolu da dem laajte ji la mu wax la ci lu leer wala nga dem ci moom man li ma li ma li may wax laa ne. Hmm. maa ngi samay làmb di tëgg sama làmb. Hmm. maa ngi xaaraat beneen adversaire bu tegaat ci daram lu ñaaw mu ñëwaat ci làmb ji maa ngi xaar loolu. mais Eumeu tey mu ngi ko joxantoon avance bu bëree. waay yow Eumeu Sène. waaw bañ a waay yow dama ne la Lac de Guiers moom déclaration bi wax naan li des ci dundam dootul bëre ak Eumeu Sène te li ma wax sama mbër bi loolu lay def. mais combat boobu est-ce que sénégalais nañ ko. dootuñu bëreet si àdduna trois fois combat yi sax du. dama ne waaw yow maa ko daan. ma téye ko première fois bi duma ko ba arbitre yi nangu sama loxo ma ñëw daan ko maay sel mbër bu ko daan xaaral maay sel mbër bu ko daan yow nga naan ay troisième fois kii dootu bërati si sax bëggatuñu combat boobu dootuñu bëre. dama ne la promoteur bu moytul di tëggal la dageer kaso nga jëm. da ngay dem kaso de waaw wala nga jaay sa kër barki yonent bi kii du mbër. dem koo waxoon tey ñëpp man lañu woo ñëpp. mais dem stade bi dégg naa la dëgër am na ay nit de feesoon waa de. waaw yow yow xam nga li ngay wax. Diène kayre moo fa indi ay nit Diène Kaïré tribune Diène Kaïré la toog dégg nga dégg nga na euh, nu mu tudd sax vingt neuf personnes la fa indi. vingt neuf bi deuxième avertissement bi amee la ñëpp ñibbi indiw la kan moo koy topp. la dëgër amul kenn ko topp ci laa. seetaanal Balla Gaye Bombardier jour combat bi nga xool stade bi nu muy mel. combat bombardier. Hmm. Balla Gaye dama la estat nga xool combat bi déggoolu ma ni billaay wallaay tallaay kuy bëreg ëmma seen bi hmm. dañ dañ lay wooyee di loo kuy bëreg la déggee da ngay wooyee di da lay ñàkkloo fayda hmm. barki yàlla dégg nga day jël bopp bi bàyyi fiiñ mi jël yaram bi yóbbu jam ñaajo mbokk internet yi nga yaram bi lay bàyyi fiiñ mi bopp bi mu yóbbu jam ñaajo kooku noo koy daane maa ko daan maa ko daan dégg nga léegi nag li may tëj daam benn mbër buy bëreeg mbëru géejawaay. benn mbër buy bëreeg géejawaay benn mbër buy bëreeg mbëru géejawaay muy rakku Gris Bordeaux yéen a may dégg benn mbër buy bëreeg mbëru géejawaay muy giri 2. Gris 2 moo Gris Bordeaux ñoo bokk ndey ak baay. Hmm. li ma daj ci combat bii laay ci combat boobu. ci combat ak Gris 2. Gris 2 mais Pape Sarr Pape Sarr Pikine lañ ko xamee woon nag. dinaa combat boobu naa ci takk rip parce que man kenn duma def combat Gris 2 bi rek ko Gris Bordeaux bi. waaw lu raw ci combat bi laay laa siy def fu ma xam naa ko ba yóbbu te naa ko jàppale. giri 2 mais suñu dëkkandoo la fii. Gris 2 Gris Bordeaux fii la dëkk Mbaaw. mais daa am lu tax may dugg si combat boobu. li ma gis démb ci stade bi. moo tax may dugg si kombaa bi. kombaa Gris bi. lan nga fa gis démb. waaw non loolu dama ciy def code ba combat bi taxaw du ko daan. mais mënuñ cee mënuñ du daan Gris 2. adversaire boobu du tudd turam. mais du daan Gris de waaw li may tëjee mooy. yéen paa yi toog ci plateau yi. dee leen waxal am may ëmma seen sax lu toll nii. paa waaw ku ci mel ni kan. ñoom ñëpp si plateau démb yi. waaw mais plateau yi fi nekkoon bari nañ. mais bari na Moustapha Gueye. waaw. dañoo ñàkk jom quoi nañ ko waaw. amuñu waaw amuñu jom waaw Malick Thiandoum. waaw Malick Thiandoum. kenn laa ci ber. kenn laa ci ber. Hmm. muy Lamine Samba. Lamine Samba yoonam nekkul ci yooyu. mais ngir yàlla war a suuri. dee leen yemale. ama seen doomu jàmbur la. ama seen seen doom la. bàyyi leen seen for yi ngeen di def dégg nga. est ce que mën nañoo ci lu Malick Thiandoum waxoon du Malick Thiandoum man waxuma man dégguma Malick Thiandoum père Moustapha Gueye laa dégg. Moustapha Gueye waaw mu ne mu day war a wax a kay la dëgër. Hmm. mais lu ñëw rek ngeen sotti am hmm. seen. dégg nga. mu hmm. man damaa foral mbëru faas samay xarit dañ cee bëri. dégg am na loo xamante ne. say analyse dee leen ko xoolaat premier avertissement nag mu ngi nii bis bu ñaaree du baax de parce que suñu sama waay la fekk naa ko moom fekk naa ko ci plateau bi moo père Bekaay ma nuyu ko. kan Tafa Gueye ngir yàlla war a suuri bàyyil doomu jaamur ji bàyyi leen jaamur dégg nga. Mhm. bàyyi leen jaamur man amul kenn si ñoom koo xamante ne rek. mun naa la xool di sëgg damaa indi Balla Gaye numéro moo ko njëkk daan ci arène du baabooy de Balla Gaye numéro un mhm. moo ko njëkk jox jox défaite ci carrière ñoom ñëpp am na fu ma jaar ak ñoom mais ñi gën a nekk sama xarit Fass mooy waa kër ñoom Papa Sow. mais Tapha dafa analyser wala dafa. analyser wul dafa for. ak for bokkul daa for xam nga ay Aziz Ndiaye dañoo gaaw la waaw ñoom Aziz njaay hmm. dañoo yëwen ci xaalis. ma leen di nuyu bu baax ñoom Khalil. ñoom Badou. waa kër Aziz Ndiaye yëpp maa ngi leen di nuyu. mais yooyu daanuñu de loolu daanul am hmm. seen. dégg nga. Hmm. buy bërewaat ak Pikine. nañu indiwaat borom kagul bi nañ ko indiwaat. Eh, yéen nga solaa sa kagul la. lu may sol kagul sax mais xam naa dina ma abal géew bi maa ngi nuyu ñëpp. Hmm. di nuyu population mbaaw bi yëpp hmm. kontaan nañu. Hmm. képp ku yeewoo fii mag ndaw ñëpp maa ngi nuyu. kontaan nañu gis nañu taxawaay bi di nuyu waa bi yëpp. wasalaam. wasalaam. lii victoire la. amuñu dara luñ ciy rëccu kontaan nañ ci. mais li ñu ci gën a di nuyu waa bi aussi tamit bu baax a baax. di gërëm ñëpp parce que liñ ci gën a amal solo mooy ñu wax ci contexte bi gars yi joxe. Lac de Guiers yow da ngaa toog ci télé bi ne Eumeu mag la Eumeu Sène yow yaa ko mag Pathé Baldé am nañu seetaanul ay kombaam ci xale yi xamuñu Pathé Baldé ku dem ba daan Pathé Baldé mbapat boo taxawee ne yow Eumeu mag la loolu da nga koy wax euh, xale yi juddu tey ñun làmb démb lañ fekkee bi ñuy bëre stade Iba Mar ñun dañ doon ñëw stade di ànd ak Eumeu amuñu lenn loo xamante ne nii dañ koy rëccu suñu combat bi passé indi nañu suñu mbër ni ñaa ngi ñu doon wax defaru leen defaruwaat nañ àdduna bi yëpp kontaan nañu ñun daal wax dëgg yàlla ak yeneen bi recours sax gars yi def nañ ko mais gëm nañ ne la de Guiers jëm boppam actuellement nii moom gàcce da koo topp parce que yow nga bëree ba pare kenn taxaw remercier la lii dafa ñaaw li Pape Sarr wax nag dëgg la 3000 jàmbur yi na ko joxe. na joxe 3000 supporters yi. na leen ko jox parce que moomu ko moomu ko kii moom xaalisu amateur mooy kii ñëw bégal ko mais ki nga xam ne day ñëw ci làmb taxaw di fecc uppal ma arrière léegi xale yi génne lañ ko way uppal ma damay arrière lañ ko tuddal di upp say loxo ci kaw di sànni sa taat loolu du bëre yow Eumeu Sène songoo ko benn yoon ñu gis nga jàpp tànkam wala nga jàpp loxoom kon ça veut dire que ni ñemewoo ko jiitu deux heures ci stade bi def li nga war a def yëpp ci stade bi te taxul nga mën ci Eumeu Sène dara Eumeu Sène champion la ma leen di wax ne yéen ñi nga xam ne yéenay faral Eumeu seen yéen ñëpp rappel ñëw leen ñëwaat leen ci kawam parce que Eumeu Sène mi ngi retourné waat ak force boo xamante ni actuellement jotaat roi bi mooy sunu objectif te moom la ñu bëgg. Ah, kon prévoir na ah, pour. pare nañu pour jëlaat affaire bi parce que li koy maye xam nañ ko. Hmm. li koy maye xam nañ ko ndap kenn du ci fot fotaat ci. Hmm. Pikine Eumeu seen mag la. Ama xam nga ma bu baax maa la yar. Hmm. Kër Fallaye Balde booy ñaa maa la ñoo la yoroon box centre Zac Sirat. ñoom Modou Ndiol ñoom Tony suñu rakk ngeen dara yàqul suñu diggante dafa rafet ñun ñëpp jàmm lañ séq ama seen doon seen mag défaillant yi leen di bëgg a jaxase ak pikin bañ leen yéen waa pikin ngeen bañ ànd ak ama seen jiital ko parce que seen mooy seen mag te maman yi muy jël roi bi maman yooyu doon roi des arènes jafe na Pikine amatu fa parce que Tyson bàyyi na Tyson bàyyi na xale yi jotaguñ ci mbër yu mag yi ama seen dem jëlal ñu roi des arènes indil ñu ko kon lam ñu waxoon def na ko yéen ñëpp maa ngi leen di wax ngeen remercier ko ci parce que li mu waxoon la def def na naa leen indil roi bi léegi nag bonus bi moo des démb mosal nañu li ñu gis doy nañu dañuy reprendre rat suñu entrainement mais Eumeu Sène moom bëggatuñu ku ko sotti gàllaa ci biir géew bi bëggatuñu ku koy menacer ci biir géew bi bëggatuñu ku Eumeu Sène di bëreel ngay koy def loola neex lool jeex na loolu moom jeex na na ko mbër yëpp xam Eumeu Sène bu ñëwatee nañ ko bàyyi mu dugg ci làmb def li làmb laaj parce que day bëggal amateurs yi tous Eumeu Sène jar na dagg billet tous Eumeu Sène jar na dagg billet waa ji koy tëggal kenn ku nekk xam nga ko muy Mor Ngom tëggkatu làmb bu mag la di tëggal Eumeu seen loo xam ne nag kenn bàkkoogu ko fii ba léegi Mor Ngom danaan leen bàkk bi ni ma ko bëggee sax Eumeu Sène dong moo ko ci man ko loolu loolu amateurs yi nañ ko fonk nañ xam ne Mor Ngom euh, artiste la boo xamante ne nii mu ngi indiwaat culture séeréer ci làmb ji di nuyu séeréel yëpp nag gis nañ seen taxawaay ci kombaa bi séeréer yi jàpp ngeen ci combat bi bu baax a baax a baax a baax suñu mbokk séeréer yi Eumeu Sène mu ngi leen di gërëm bu baax di nuyu waa Gambie di nuyu fans club bi di nuyu waa Badiana di nuyu ñëpp Cheikh Abdoul Karim ñoo ngi lay bégge bu baax Mbacke Balaye sa ñu ngi siyaar baax a baax ndam li daal ñu ngi koy may képp koo xam ne bëgg nga Eumeu Sène ndax lii ndam la ci Eumeu Sène parce que li tax mooy yow da nga ne mag la ñun buñ ko newoon demal mu dem mais dañ ko ne comme dalay fontoo taxawal déglu ko. est-ce que mën ci lu Tafa Gueye wax ak ay ay ñoom Maay Thiandoum loolu ñu wax. cest à ñooñu du ma wax seen wax parce que xam nga lu tax. seen liggéey la def mais dafa am loo xam ne soo koy wax dee ci sóoraale askan wi. doomu jàmbur bu àndeek mbokkam ñëw ci làmb di bëre. Hmm. di bëre koo xam ne du dem du dikk day taxaw di la def di la di soofal làmb. Hmm. kooku man du ma am lu ma leen wax parce que damay defe ne rek maanaam. Euh, seen seen seen xel fa toll mais am na ñoo xam ne gisee wuñ a nekkoon foofu noonu nga dikkaluñ tuuti rek ci ñoo xam ne Tapha Gueye ak nga ko ci lu ñuy wax ama seen man maa ngi woon ci làmb ji man maa ngi ca guerre ba guerre bi dama cee saf sap mhm. parce que ama seen fu mu naanee doom ñun ñu pikiroo fa mhm. dañu nekkoon nag ci ginnaaw xaw a sori tuuti mais dem nañ ba gis ne lii jege la laaj dañuy ñëw de mhm. mbër bu ko mën a jël dootoo affronté ama seen dootoo dox ci kawam dootoo ko xëpp gàllaaj dootoo ko def lu ko neex jamais loolu jeex na mbër bu jëlet Eumeu Sène na nga ko bàyyi mu tranquille bëreeg yow mais bis boo ko sottee dara lamb jooju moom boo moytuwul dana yàqu parce que ñun ñoo ko dul seetaan ay xaritu enfant am ñoo jog ànd ak waa pikin ànd ak waa Gambie ànd ak ñëpp jog taxaw képp koo xam ne daal bëgg nga Eumeu Sène ñu ngi lay ñaan nga gën a jàpp mu dëgër te xam ne Eumeu Sène ndaanaan la mbër waada la man xam naa ko bu baax mbëru Pikine yi nañ ko fay borom Eumeu Sène gunge na ku ne ñoo daan ànd fajar di yeewu di ànd mbër yi ñu mag géej di dem saal tey lii lañ ko mën a fayee mais nag yàlla baax na parce que man chaque jour bu bu génnee ma jooy mu ma looy jooy ma ne ko damaa xam ne li nga leble ci teraanga ci làm ak liñ la fay dafa waroo lii rek moom ma jooyloo Eumeu Sène boo doon génn Pikine kenn warul des ñëpp a war a ñëw waaye nag ku yàlla fay moo gën ku nit fay. waxuma Pikine mbër ya la Pikine de Eumeu Sène na ko yor mbër ya ci mbër ya mbër yu mag ya laay wax. mbër yu mag yi mbër yu mag yi laay wax xam nañ seen bopp ña fa jiitu. daw daw làqu yi laay wax ñooñu xam nañ seen bopp sequma ak ñoom dara moo tax du ma mën a tudd seen tur mais man dama dama mer ci ni ñu dundee moom parce que Eumeu Sène daf leen lebal teraanga jël ay combat yu bari yoo xam moo leen di gunge di leen jàngal bëre di leen daan géej ñenn ñi bu ñu ñëw dañ daan diwoo saafara contact ndax bëgg a daan Eumeu Sène am na mbër yoo xam ne biir pikin lañ nekkoon xam nañ seen bopp nañ ma xool bu baax suñ daan ñëw entrainement dañuy sangu diw ngir bëgg a daan Eumeu Sène entraînement Eumeu bëreegul. mais mënoo ñu cee wax kenn rek koo xam ne. bari na grand yow tamit. wax ju yegg dafa ko moom. waaw mayu ci kenn rek. dama ne. waaw wax ju yegg dafa ko moom. comme man kenn tuddul sama tur. Hmm. maa ngi xam li ma xam noppi. mais képp ku laale te Eumeu Sène Pape na ma woo. lima ma fekk na de ku laale ku laale te Eumeu Sène rek Pape Sarr rek sama numéro dina ma woo te taxaw nañu pour defaat beneen carrière bu bees aussi tamit ci làmb. pour tëjee ko loolu na ci supporter yëpp bàyyi xel. mais est-ce que ku mel euh, ngeen ci làmb ji. ma bàyyi man ku ma tudd laay tudd waay grand. bu ma bu grand bul yàq émission bi waaye xam nga lu tax. Euh. man man gunge naa mbaru Pikine. Hmm. doon naa seen booy. ama hmm. seen doon na seen booy. Hmm. mais tey man waxatuma côté boobu man xam nga ban côté laay waxee. côté may mooy nekk ci ëmma seen. parce que man xamaguñ ma ci média yi du ma wax média lu bari. mais li tax ma jël micro sax jël ne Pape Sarr mais ma ma wax sama xol dafa sot Eumeu Sène na journaliste si xam ne li ñuy wax ci moom na rafet parce que Eumeu Sène du yàq làmb ay kaddoom ñaawul aussi tamit nit la bu dal boo xamante ne nii buy wax chaque jour danaan leen man mënewuma wax jëf laa mëne la degeer nag li nga waxoon defoo ko da nga ne woon su ma ñëwee dinaa dox ci kawam naa ko duma dinaa ko daan dóor sax defoo ko sewee yi gudd moo tax nga gaañ ko Eumeu Sène boo ko gisee taful dara ci kanamam nga nekk géejawaay naan Eumeu Sène ah bët ba toj naag kanam nga toj na Eumeu Sène léegi mu génn jàkkaarloo ak yow Eumeu Sène dara dalu ko dara dalu ko barke Seydina Mohamed dégg nañ nga da nga ne Eumeu Sène da nga ko dóor bëñ bi deñ bakkan bi toj yax bi toj c'est foo ku gis Eumeu Sène tey di nga xam ne ñii li ñuy wax amul lamb du ay wax làmb jëf la boo leen amatee combat dee leen bëre di songo di di dóorante mais jël xaalisu jàmbur ba pare nekk ci làmb ji di taxaw di sànni see loxo ci kaw indi ay fuur la xaw ma ay ay fuuru jàmbur ngeen tuxal taal géew bi yëpp fii lu fi waaye def ñu yàq ko ñun gënoo leen ñu xam lamb hmm. lu dañ koy kalaate peace and love ñi ngi bëggee ñëpp nag jaa ngeen jëf Sarr yow sama lonko nga laal daf may laal yow ku la laal dina ma laal barke Serigne Touba yow amal jàmm ñun ñooy pikin ñun ñooy pikin ngay wax ñun man ak yow ñooy pikin kontaan nañu sama gars yi peace and love waa ki ngeen gis moom moo nekk euh, président Fans Club bu euh, Eumeu Sène Euh, yu jóge ba Gàmbi ñëw euh, pour euh, jàppale ko ci bés bi moom lañuy jox kàddu yi rek mu wax moom lu ñu ci xalaat ak combat mi nga ko gisee di jare ngeen ñëw ba Gàmbi ñëw ba tey fii nii di jàppale seen Eumeu seen nan ngeen dundee combat bi démb. waaw asalaamaaleykum ansi billahi mina seytaani rajim maa ngi lay maa ngi nuyu Dakar Dakar TV. Dakar Live TV. di kontaan ci ñëw bi ngeen ñëw fii nii. di nuyu suma naataango yi nii yëpp. di nuyu ak écrit tay si nga bu nekk Gambia ak fans club bi yëpp bàyyiwuma kenn. di kontaan ci ñoom seen teewaay bi def dérangement ñëw ba fii nii di supporter seen mbër yàlla dimbale ñu euh, combat bi demee nii ñu santaat yàlla bu baax a baax a baax. mais démb na ngeen gisee combat bi est-ce que ni ngeen ko bëggee woon. non combat bi bëggewuñ ko woon nii. Hmm. kuñ doon bëral duy bëree. yaa may dégg hmm. dañ taxaw moom dafa ci jàkkaarloo bi la waxoon jëfewu ko. Hmm. dafa waxoon ne Eumeu Sène mag la moom mooy xale ne Eumeu Sène na bëre dina xeex. te loolu dëggalu ko kon waxi ngelaw la doon wax. ñu dañ taxaw di ko pour ndax dina jël si wala du jël si waaye ñëw def dara te Massène li ko loolu la sañ a def mm. dañ ko ne ko taxawal nga xaar gan bi mm. su ñëwee nga defal ko bagage mm. ñëw taxaw foofu mel ni kuy upp la dëgg ko xam-xam ne moom du ñëw moom day taxaw moom du mos a kon xam nga ci télé bi jàkkaarloo bi la mu doon la waroon a su ko jëfee woon rek làmb ci neex kon nañ ko daan jël bu amul fenn jamono ñu toll nii kuy caaxaane Eumeu da nga ko xamut Eumeu Sène ma woon ak Eumeu Sène nii du benn ci ay loxo yu wóor la nekk àdduna wërngal képp foo dugg Eumeu Sène na fa dugg. mais dernier euh, dernier avertissement Eumeu Sène nan nga ko gisee. no loolu du yoon du yoon avertissement bu noonu arbitre bi dafa def lu ko neex rek nde coach la la de guerre mu ngi nekk di bëw ci noppam mu ngi koy dégg. di wax di wax ah coach la de guerre ñu ngi koy gis mu ngi nekk ci nopp arbitre di wax di wax di wax jaxase arbitre di ba arbitre bi jox Eumeu Sène te loolu du yoon. lamba ji nii nii la woon suñu waxee dëgg rek te yàlla tax lamba ji nii la woon Sénégal gi farfarlante bi moo bëri te Eumeu Sène ñi koy xeex dafa bëri waaye nag nañ bàyyi seen xel bu baax Eumeu Sène lu ko yàlla lu ko lu ko yàlla def mënu ci dara kon nag taal bu yàlla taal la sànni ca mat a gën di ko fay nañ bàyyi seen xel bu baax a baax te Eumeu Sène ok jàmbaar ñu ngi leen di di la jaajëf ok